salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan seen télé bu mag bii di seen vingt 24 ak RTT TV euh, tey nag boo gisee sunu équipe ñu ngi déplacé wu ñëw fii ci marché Moussante ñëw ci centre de formation Gora Athie fekk fi élèves yi fekk fi professeurs yi macha allah ci taxawaay bu am solo fekk leen ñuy produire ay ay yoo xam ni euh, école yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi euh, te nekk ay blouse yu am solo ñu leen koy liggéeyal fii ci centre professionnel Gora Athie ngeen gis élèves yi nekk ci waaye macha allah boo xoolee élèves yi rek seen blouse yi dafa rafet parce que ñu ngi sol ay blouse yoo xam ne macha allah waaye tiim ay blouse yoo xam ne di ko ñaw te teg ko ci yoon ànd ak ceeg ñu xarañ ànd ceeg ay professeurs yoo xam ne macha allah boo gisee liggéey bi di nga xam ni liggéeyu professionnel la waaye liggéey la boo xam ne ñu ngi koy teg ci yoon euh, xoolee fi ñu taxaw ci taabal yi ñu ngi fi taxaw ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñooy saytu centre bi waaye ñoom ñoo yor liggéeyu élèves yi di leen teg ci yoon bu ngeen xoolee ñu ngi ci suñu wet ak directeur bi nga xam ne mooy directeur école bi di euh, Ibrahima Ndiaye moom mi nga xam ne mooy directeur école bi yor élèves yi di leen former di def ci ñoom xam-xam waaye ànd ko ak équipe bi mu ko àndal bu ngeen xoolee ci table yi yéen gis doyen Ibrahima Mané léegi rek ci liggéey bu am solo bi nga xam ne doon na ko liggéey muy tracé pantalon euh, tracé boo xam ni boo ko boo ko xoolee ak norme yi nga xam ne moom la ñu xam ci euh, international ni ñuy kubee di ko liggéeyee boo xoolee coupe bi da nga naan euh, macha allah dafa demoon ci tubaab yi ñu jàngi ko ba indi ko ci réew mi ah, lii ñu rafetlu ko bu baax te félicité ko ci macha allah waaye boo xoolee ba léegi ci taabale yi ñu ngi fekk euh, Ousmane Diouf moom it di kenn ci professeurs yi macha allah moom it di ko xarañ euh, yàgg liggéey li nga xam ne mooy ay blouse ci taxawaay bu am solo waaye ba ba tey ñu ngi fay ak professeur Papa moom it ci profil la bokk ñi nga xam ne ñooy saytu école bi waaye it boo gis kee ci wet di Pape Diop moom it bokk ci euh, professeurs yi macha allah taxawaay bu am solo boo gisee jëm yi di nga xam ne ñii ay ay ay lañ liggéey rek moo leen tax a jóg école bi nag macha allah ci taxawaay bi am solo lay taxaw ndax lépp lu jëm ci xeetu ñaw boo ñëwee fii danañ la ko fi jàngal lépp loo xam ne jëm na ci xeetu coupe jëm na ci xeetu confection boo ñëwee dinañ la ko fi liggéeyal ndax am nañu matériel yëpp macha allah boo gisee siso bii ñu teg ci kaw table yi siso électronique la ciseau la boo xam ni euh, boo ci matelaasee tissu lu mu bari bari lu mu boo ko matelaasee moom la entreprise confection yi di liggéeyee boo xoolee macha allah. ciseau euh, la boo xam ni bu raar la bu jafe la waaye ñu ngi ciy remercier bi euh, sunu partenaires yi nga xam ni ñoom ñoo ñu ko jagleel di ma ak FENAF euh, gi nga xam ni ñun ñëpp fa lañ nekk di ànd ak ñoom ñu yokk suñu doole di yokk suñu xam-xam ñoom ñoo ñu orienté jox ñu matériel yu am solo yi boo xoolee ciseau bii ma yor tamit ci ciseau électronique yi ci la bokk waaye mooy ciseau bi nga xam ni moom moo gën a ndaw ci ciseau électronique moom it macha allah boo mat laasee teg liggéey bu gaaw dina ko dagg doo sonn di lii nag day wane ni léegi mode avancé na day wone na it liggéey bi avancé na nekkatuñ ci rek ci fañu nekkoon bu njëkk di jël ay ciseaux à main di dagg waaye lépp électronique la da ngay mu liggéey la liggéey bu set daggal la lu bari macha allah ci anam bu gaaw te rafet boo xoolee it fii macha allah ci surfleuse bi nga xam ne mu ngi ci biir euh, centre bi nga gis ni lépp loo xam ne tey jii nit ñi ñu ngi koy ñaw day ànd ak surfleuse ñu koy surfler waaye surfleuse bi boo xoolee xam ne surfleuse industrie la euh, mën na surfler lu gaaw du yàgg lu mu xës ba surfler jaar ci dootul am benn problème lii daal mooy centre professionnel Gora Aaj fi lañ ñëwoon tey doon leen fi defal reportage di leen jox ci directeur bi moom it mu nuyoo wax ñu formalité école yi nan lay demee élève bu fi bëgg a ñëw nan lay nan lay ñëwee inscription yi euh, commencé na wala commencé wul inscription yi fan la toll est-ce que euh, règlement intérieur u centre bi naka lay demee directeur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. ñu bëggoon nga ñëwal ñu rek ci centre bi lan moo ko tax a jóg lan lañ fiy jàngalee. centre bi ñu centre formation la. dañuy jàngale ñaw dañuy jàngale coupe dañuy jàngale bépp liggéey professionnel boo xam ne daal mi ngi xew ci jamono ji actuellement nii sant baa ngi ci yëngu ci côté boobu noonu waaw. waaw ñu bëggoon a xam rek élèves yi ñi nga xam ne si ay woy jur lañ am ay doom ñu bëggoon a ñëw ci ecole bi tey fan la ñuy jaar yan numéro mooy numéro yi nga xam ne ci lañ mën a wootee pour ñëw dugal seen doom ci école bi. waaw ku fi bëgg ñëw yaa ngi laajte marché mu santé yaa ngi yaa ngi yaa ngi sant centre marché mu sant centre bi boo dikkee boo ko laajtee rek dinañ la yégal ñu wan la adresse bu mu benn. numéro téléphone bi numéro téléphone bi 77 306 37 75 77 294 93 19. macha allah loolu mooy euh, li nga xam ne moom la directeur wax muy képp koo xam ne bëgg nga ñëw ci école bi indi fi sa doom ngir mu am métier te ndax métier mooy li nga xam ne mooy moom mooy moom ngay defaree sa ëllëg ecole baa ngi nii ubbi na ay buntam tàllal nañ ci keesuwaay yëpp loxo waaye fu waay nekk ci àdduna bi ñu ngi lay tàllal suñu loxo di la wax ni rek incha allah boo ñëwee dinañ def ci sa doom xam-xam waaye dinañ jël Ibrahima Mané macha allah ci ñi taxawu école bi ci la bokk moom mu wax ñu naka la gisee école bi ak ban message lay lancé population keesuwaay asalaamaaleykum ñu ngi seetaan ak ñu ngi déglu ci TT TV euh, di kontaan trop ginaaw bi ni sant yàlla di julli ci bi di sant bu baax ci lii nga xam ne xéewal suñu borom la bu mu indil mu jaaree ci FNAF ak waa EDPM ñu kontaan bi trop mu tax ñu ñu tàmbulee def action yoo xamante ne macha allah gis nga centre bi ni mu toll mu ngi fii ci marché mu santé ci sant commercial bi. xam naa bu bis ba ouverture bi ku ñëw di nga ràññale centre bi fu mu nekk ndax tableau beeg lépp ak mu ngi ci kaw dinañ ko annoncé ba nga xamante ni ñëpp dinañ ko yëg ba tax na daal ñuy bëgg képp koo xam ne da ngaa bëgg a jàng ñaw ci qualité bi nga xamante ne moo gaaw te nekk bu wér boole ko nga ànd ak sa diplôme da ñëw ci centre commercial bi di nga ko fi fekk ay professionnel a nga fi ñoo xam ne yàgg nañ ci métier bi xam nañ ko te dinañ ko jàngale ak xol bu yaatu loolu yaakaar naa ne képp ku inscrire sa doom fii ci centre commercial bi mu ñëw fi doo ko rëccu loolu daal laa bëggoon ñi nga xam ne ñu ngi ñuy jot a seetaan ak ku nu mën fi seetaan nga xam ne centre bi démarré nañ ko te bëgg nañu nit ñi ñëw inscrire ay xale ngi fi yoo xam ne ñu ngi fi waaye bëgg nañ mu gën a yaatu ñu ñëw jàng ñu jàngal leen jàng boo xam ne diir bi du yàgg comme ni ko état bëggee nga xam ne dinañ jàngale lu mat ay 3 mois ci ça dépend niveau ba nga tollu ñëw fi ñu jàngale ci dimension boobu nga mën a jàng bu gaaw dem ubbi sa atelier dem nekk ci formel bi nga xam ne di nga mën a liggéeyal sa bopp dimbali sa bopp dimbali say njaboot dimbali say waajur jërëjëf Ibrahima ñu bëggoon nga ñëwal ñu parce dafa mel ne du jàngale métier rek ngeen fii def mm-hmm. dafa mel ne da ngeen fii confectionné ay blouse ak ay tenue de travail ak yu demee noonu waaw jërëjëf Khadim Soumaré di kontaan trop ci fàttali boobu mm-hmm. ndax euh, fii dañoo bëgg lépp loo xamante ne état mu ngi koy joxe ci lu liggéey ci ci ci euh, tenue yi mm-hmm. soxla nañ ko dañ koy liggéey ndax démarré nañ ko ñoo ngi liggéey ay blouse yoo xamante ni ay case de tout petit ay centre yeeg kii euh, écoles yi kii yi am ni waaw ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey kon dèjà ñun xam nañu tàmbale nañu yoon am nañu yoon bi xam nañ ko incha xam naa ku am sa looy ñawlu boo ko indi fii ci centre commercial bi dina gaaw te dina nga machine yaa ngi fi macha allah am na yeneen yu nu monté wul sax waaw ku fi indi sa euh, liggéey dina gaaw dina baax te di nga ko am ni ko bëggee loolu lépp dañ ko fi liggéey jàngale bi ak ñawal ay blouse ak ay lépp dañ koy ñaw pour daal satisfaire ñëpp képp koo xam ne daal soxla nga ci centre bi. jërëjëf doyen Ibrahima Mané ci kàddu yu am solo yooyu rafet na macha allah bu ngeen déggee li ñu wax résumé ko lépp mooy centre bi daal ku fi indi sa doom danañ la ko danañ la defal ci moom métier yaral la ko defal la ci moom xam-xam génnee mën laa jëriñ mën a jëriñ boppam waaye lépp loo xam ne jëm na ci wàllu confection yi boo ko ñëwee fii incha allah loo fi indi muy tenue de travail muy blouse muy lépp lu jëm ci xeetu confection boo fi nee dinañ la ko defaral ci liggéey bu anam bu set te sell incha allah lii nag mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee woon ànd koog seen télé RTT TV ak seen 24 ñëw fii ci marché Moussanté euh, ñëw indi leen leen lii ngir won leen ko ngeen xam ne ni kan marché. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki àdduna mbokki Ceeskaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di leen nuyoo ci fi ñu leen daan nuyoo ci seen télévision bu mag bi nga xam ne mooy RTT TV di télé artisan yi di télé regroupement des tailleurs waaye di ànd ak sunu naataango seen 24 ñoom it ñuy liggéey liggéey bu am solo ci dëkk bi tey nag ñu déplacé woon ak équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñëw fii ci marché Moussante ñëw ci lan ci wàllu artisanal li nga xam ne mooy euh, li téer yi di liggéey ci dëkk bi waaye li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci wàllu modd ñu ñëw seet seet si nag kilifa gu mag tey di président fenaaf FENAF di organisation professionnelle bu mag boo xam ni euh, nationale la euh, foo dem ci àdduna bi rek di ko fa fekk seen représentant waaye di ko fa fekk ñi ñu àndal di liggéey tey nag ñu ñëw fii ci Moussante euh, seet si président régional président régional nag bu ñu ko waxee mooy ëmb dëkk bi yëpp ëmb ak li département yeeg yëpp moo ko ëmb seen président la seet si tey fekk ko fii ci marché Moussante fas yéene waxtaan ak moom ci taxawaayam ginnaaw bi ñu ko bàyyee mu nuyoo ba pare danañ dugg ak moom ci ay laaj incha allah Baye Mbacke ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ginnaaw bu ñu santee yàlla jullit ci yonent bi waaw ñun la Cheikh Mbacké Mbaye nekk président régional FANAF fii ci cees représenté FANAF fii muy le président góor aaj ak kuréelu FANAF yëpp waaw loolu mooy suñu teewaay fii incha allah. Ah, mooy Baye Cheikh Mbacké Mbaye di président FANAF bu cees Euh, ñëw représenté fii président national du Gora Athie euh, moom lañu fekk si fi tey naa ginnaaw bi mu nuyoo présenté wu dañ koy bàyyi rek mu wax ñu lan lan mooy FENAF FENAF mooy lan ak lu ko tax a jóg. waaw euh, loolu yomb na tontu mais bala ñoo dem ci loolu dañuy gërëm chaîne télévision bi fi ñëw ñu ngi gërëm képp kuy presse nekk ci sa Thiès ñu ngi lay gërëm di la sant. FENAF nag boo ko déggee lu muy tekki turu FENAF mooy fédération nationale des professionnels de la l'habillement. lépp lu jëm ci wàllu ñaw ñoom la yàlla def mu teg ko ci seen loxo fii ci ci Sénégal fédération la boo xam ne yaatu na nag région bu nekk am nañ fa représentant seen kilifa nekk Dakar di président Gouraaj bu nekk Sodida yilif ñu ñun ñëpp képp kuy nas puso rek yàlla dogal na moom mooy sa kilifa fii ci Sénégal. macha allah loolu kon lu am solo la ci taxawaay bu am solo la ñu am fii ci dëkk bi waaye am ko ci national bi yëpp euh, ci président duñ la bàyyi ci question yi ba léegi ñu bëggoon a ñëw euh, nga xamal ñu ba xam membre yi ak euh, représentant bi nga doon représenté fii ci Thiès ak membre yi nga xam ne jiite ngi leen tey bu ñu ko doon xayma ci ñaata membre lañ toll ba xam yëf yi tamit membre yi ñu ngi koy gis seen bopp bu baax. waaw comme ni nga ko waxee rek jërëjëf loolu mën nañ ci tontu parce que tey booy xool dañ naan département bu Thiès. am nañ fi trois cent trois cent quatre membres am nañ ko fii ci département Thiès waaw boo ñëwee léegi euh, parce que département Thiès boo koy wax Tivaouane ci la bokk Pout ci la bokk Kër musa ci la bokk Xombal ci la bokk waaw kon loolu lépp boo ko boolee am nañ ci trois cent quatre-vingts waaw bu fekkee da ngaa jël département Tivaouane am nañ fa quatre-vingts boobu nag Pire ci la bokk Ngaay ci la bokk euh, mbooro ci la bokk kon nag euh, loolu 80 la bu fekkee jóge nga foofu nga dem département bu Mbuur am nañ fa 60 membres 60 membre yooyu mën naa ne ngàpparu ci la bokk waaw caajaay ci la bokk kon nag ak ak ak ak euh, département bi yëpp daal ñoom ñëpp ñu ngi fa am à peu près 60 membres boo leen boolee ñoom ñëpp mu ngi nekk dix membres am nañ ko yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi jënd carte yor nga sa carte vraiment am nañ ko ci région de Thiès yëpp 510 membres am nañ ko mais yemu fi ndax am nañu 48 yoo xam ni déposé nañu mais defaraluguñ leen carte mais dañuy continé am nañu mais boole wuñ leen ci lim bi 48 la ñu yoo xam ni incha allah bu ñu demee Dakar nañ leen defaral carte incha allah xanaa di laaj kon carte yi ñaata lay jar. waaw carte voilà justement carte yi il faut que boo koy déposé da ngay joxe 2000 francs ñaari photo carte d'identité ak photocopie carte d'identité boo ko defaree rek ñu dem Dakar defar la carte yi di indi la ko fii incha allah boo buñ ko indee nag njariñ lépp loo xam ne jóge na FNAF yow bokk nga ci am nga ci cër incha allah waaw. loolu mooy importance su bi bépp njëriñ boo xam ne jóge na FNAF. boo adhéré ci mouvement bi nga xam ne mooy mouvement national FENAF bépp njëriñ bu fa jógee boo yore sa carte bu njëriñ yi ñëwee di nga ci jëriñu waaw ñu bëggoon a xam nag devoir devoiru membre yi membre yi nga xam ne ñoo adhéré ci FENAF lan mooy seen devoir est-ce que ñu ngi koy topp à cent waaw ñu ngi koy topp à 100 pour cent parce que devoir bi mooy yow nga fexe ba nekk en régle en règle bi mooy nga yor carte boo xam ne carte bu valable la carte bu valable boo ko xasee ba am nekk nga membre FENAF li ci des kay mooy di ñëw réunion di préparer cotisation yi comme nag dañuy door a commencé cotisation yi waxaguñu ñaata la ak naka lañ koy tege ñu ci àggee kenn ku nekk ñu wax la li nga ci war a def lépp lu ñëw rek nga mën cee gis sa bopp parce que centre bi FENAC moo ñu ko jox booy xool centre bi FENAC moo ko teg ci suñuy loxo waaw ci liggéey boo xam ne membre yëpp ci ànd di liggéey yow mii ci nga bokk membre yaa ngi nii toog ñoom ñëpp liggéey nañ ci liggéey bu rëy ba mën a jot ci lii kon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla saxal ko barkeel ko te itam euh, yemul fii FENAF bu rëy fii ci biir Thiès xam naa bu ci question yi eggee itam mën nañ ci jàll incha allah. waaw foofu sax lañ jëm Baye Cheikh muy mel ni FENAF liggéeyam ci Thiès euh, faaw ñu laaj ko ndax bu fekkente ne organisation nationale la defe naa bu duggee ci régions yi rek am na lu mu indi régions yi am na lu ko tax a jóg. li ko tax a jóg li ko tax a nag lañ bëgg a dugg lan moo ko taxa a jóg aussi tamit euh, comme tailleur fi mu toll tey ñu ci bari ñu ngi soxla ay formation waaye ñu est-ce que loolu FENAF mu ngi ciy joué. waaw mi ngi ciy joué lu rëy parce que amul lenn loo xam ne jóge na ci état di jàll ci euh, artisan yoo xam ne ci ñaw la la yàlla féetale te jaarul FENAF loolu mënul nekk c'est pas possible liy wane loolu mooy euh, yàlla def na am na jimi jamono mat na un léegi président bi ñu woo nañu defal bu ñu bëgg defal formation ñun tailleur Thiès yaakaar naa jour formation boobu cinquante personnes demoon nañu cinquante yi ñu nekk ñaari groupe benn groupe bi moom la yàlla dogal ñu nekk marché bu mag bokk ci groupement des terres de la région de Thiès yàlla dogal ñu ñu nekk fii ci mu marché mu sante bon li nga xam ne jox nañ ñu ko ci matériel yàlla dogal na jox nañ ko groupement boobu bon ñu ngi installé centre bu mel nii mbaa sax bu dàq bi kon nag loolu lépp ci liggéeyu FNAF la waaw liggéey FNAF dugal na fi ay bagage yoo xam ni yaakaar nañ ni benn OPA mosu ko fi def avant loolu mat léegi deux ans ou trois ans FNAF tabal na fi ay machine VI lebal na ko fi ay tailleur une cinquantaine de machines tailleur yi ba nëgë ñu ngi ci ñaw kon nag FANAF yàgg naa liggéey ci région de Thiès mais nag chance la parce que lii dafa naroon a yaatu wër ci senegal képp mais li tax Thiès yem ci amaatul ci benn région mooy dafa dugg ñu jox ñu ko rek avant ñuy dem Saint-Louis pour joxe ko fa mbas mi ñëw bi mbas mi ñëwee nag liñ naroon a yóbbu ci matériel bu mel nii ca Ndar wala Dakar wala Kaolack wala yooyu dañ ko mujj jox leen ko ay masque ñaw ko ñu fay leen xaalis bi loolu moo tënk ba tax lii eggagul ci benn région cees rek la yem 50 machines dugg na fi bu yàggul ci un rek ma xam ne mooy lii ak li nekk marché bu mag lépp ci loxol FNAAC la ko yàlla jaarale mais nag xëy na ñu ngi am yaakaar ci ne mbas mi jeexee danañ dem saint yi danañ dem kawlax pour def fa lu mel nii kon daal FNAAC njëriñ dong ci nekk képp koo xam ne bokkoo ci woon ñu ngi la ciy woo nga ñëw bokk ci ndax njëriñ dong ci am njëriñ dong ci am alors ak financement waaw financement bi euh, yàlla def na li nga xam ne ñëw na fi ci financement ci tailleur yi booy xool dañ naan deer bi fi duggoon lii fi jot ci marché mu sant kenn xamul nu mu toll te kenn ku ci nekk am nga carte finance am nga jot mat nañu vingt cinq personnes yoo xam ne am nañu financement waaw lii fi jot a dugg te muy financement yu mujj yi am na ñu bari jaar nañ ci finance ba am ci teewul nag mbirum artisan la képp ko xam ne déposé nga donte doo tailleur sax war nga cee mën a am mais FANAF li tax mu doy waar day topp ay membre am ndax ñun li ñu wax ne képp kuy déposé ci financement yi da ngay fexe ba am carte FANAF jox ñu sa numéro ñu jël ko jox ñu sa filiation yëpp ñu jël ko yóbbu ko dakaar déposé ko bu ko defee FANAF day xool quota bi mu am moom dem ministère déposé ko bu ministère des financiers tailleurs yeeg artisans yi nga mën cee gaaw a am loolu mooy njëriñu FANAF loolu mooy njëriñu FANAF loolu mooy njëriñu FANAF muy mel ni képp koo xam ne adhéré nga ci mouvement bi Euh, lépp luy njëriñ lu jógee ci état dina agsi ci yow waaye lépp loo xam ne am nga ko jafe-jafe ci sa wàllu entreprise pour mu développer boo ñëwee lëkkaloog ñoom da la accompagner ba nga am ci lu kawe ak day mel ni kon mouvement bu am solo la président Cheikh Mbacke Mbaye présenté ñoo ko bokk déggandoo ci làmbañam waaye danañ ko laaj képp koo xam ne bëgg naa dugg ci mouvement boobu tey te jàkkaarloog télé bi di ko seetaan yéen nan la mën a def ak yan numéro la mën a wootee ngir jot ci yow. waaw euh, loolu ko ko bëgg def yomb na ñëwal marché mu santé centre de formation centre commercial marché mu sant boo fi ñëwee yaakaar naa ñi nekk ci biir centre bi yëpp membre yi FNAF lañu koo ci gis ab tailleur buy tiim machine bi ñaw boo ko nee damaa bëgg a nekk membre FNAF xam na fi mu lay jaarale ba nga daal di jot ci ñun te sori wu ñu ñu ngi tout près bu ñëwee ci yow mii yaa ngi ci suuf bu ñëwee ci yow mën nga ko teg ci yoon kon nag loolu yaakaar naa ni yoonu gaaw la te bunt la boo xam ne ku ci jaar rek di nga nekk membre FNAF membre FNAF nag njëriñ rek moo ci nekk yaakaar naa mu sante ci Thiès gi yu bari membre yi FENAF la ak nag foo mën a bokkitam itam membre yi FENAF nga mën naa wax sax ne FENAF mooy Thiès FENAF mooy groupement des tailleurs de la région de Thiès loolu FENAF la parce que mën naa ne ñëpp FENAF lañ bokk parce que FENAF yemul ci région bi Sénégal la te loolu kenn ku nekk bëgg na cee gis njëriñ te ñun ñëpp ci lañ bokk yow mii cër groupement bi nga bokk keneen ak keneen ak keneen ak ñun ñëpp même man mi ci groupement bi laa bokk. waaw kon nag membre yi FENAF moom génnul kenn kuy nas puso rek ci nga bokk. dafay national nag indi njariñ ñu bëgg ñëpp am ci. waaw loolu moo tax ñu koy woote man nag yàlla daf ma fee teg ma nekk président pour le moment mais incha allahu rabbi ci loxol gone yi lay mujj waaye yéen ñi fi nekk di xale dañ leen di gunge rek bëgg ngeen jàpp ndax jëkkul ci man jëkkul ci man jëkkul ci man dafa am président yu fi jaaroon Ousmane Sène ñu ngi koy gërëm de de passage moom lañ jël lengee ci moom avant Ousmane seen am na ñu fi jiitu ñun ñoo ci mujj kon nag ñun itam day dem ci loxo yi ñeneen ñuy ñaan yàlla na doon ay xale waaw mu doon xale te ci yéen seen loxo la jëm sax incha allahu rabbi te ñu ragal ne bu ñu ko tegee ci seeni loxo di ngeen ci doxal loo xam ni ah, ñun dina wees njot waaw loolu la ñu yéene rek dañ leen di gunge rek kon nag jàpp leen bu dëgër fenaa fa ngi nii njëriñu kese la waaw ñu ngi nuyu nag le président Mamadou Seck ak njagawaat bi Ablaye ngoom képp koo xam ne yaa ngi fii rek di kilifa ak tailleur ñoo ngi lay nuyu waa di la ziar aussi di la jox sunu loxo waa di nuyu aussi Bafou collection mu nekk nit koo xam ne nit ku baax la waaw lu ne def na ko fii ci tailleur te it kooku moom kenn amul payam lu mu ci war a taxawee taxawee na ko ci te ñii mën a limal ñëpp itam génnuñ ci membre yi fenaan waaw di gërëm aussi Cheikh Sey ko ses ñu ngi gërëm ñëpp daal képp ku yëngu ci métier tailleur rek ñu ngi lay gërëm di la woo te xam ne sunu président daf fee bëgg ñëw te bëgg nañu bu ñëwee mu fekk ñëpp toog waaw ñu mën a leen présenter incha allah. ok loolu mooy kàddu yu président mu mel ni ñëw na ci importance yi nga xam ne FENAF am na ko waaye ñëw na it ci képp koo xam ne bëgg nga dugg ci mouvement bi fan ngay jaare Euh, wax na adresse bi wax na it yombal gi nga xam ni euh, ku ci bëgg a bokk dootu la jafe ndax boo ñëwee marché musante ci centre commercial bi boo ñëwee ci man danga gis président boo laajtee président keneen koo mën a yem muy Papa Ndiaye muy Ousmane Diouf muy Ibrahima Mané Moussante ñooñu ay nit ñu ñu xam lañ ba ci Baye Sidi Diop ay nit ñu ñu xam lañ ku leen laajte boo ñëwee di nga àgg ci président incha allah mu wax la li nga xam ni moom la ñuy ànd ku liggéey ko ak yéen bu ngeen déggee léegi ci kàddu yi fi mu daane la kàddoom mooy FENAF yëfi ndaw ñi la yëfi ndaw ñi la ñoom ay mag lañu ay mag nag bu ñuy xàll li mag li naan mag buy xàll mbabal doom jaa tax kon loolu mooy moo ci nekk ñoom ñun la ñuy xàllal ñun ndaw ñi ñun lañ bëgg ñu jariñoo kon ñun nañu daw wii si woote bi nga xam ne ñu ngi ñu koy woo ngir lan suñu njariñu bopp kese la kon nañ ci gën a góorgóorlu ñun ndaw ñi te xam ne avenir u ndaw euh, taxaw taxawu sa bopp da ciy bokk te ñoom xàll nañu yoon wi ba yoon wi set na kon ñëw rek dox dem moo ci des ah, bu ko defee ci programme bi nga xam ne moom lañ jublu président dafa mel dafa am loo bëgg a complété waaw kàddu gu mujj rek euh, mën naa ne ci programme bi man voilà bala ñoo ñëw ci programme bi damay wax rek na ñëpp jàpp ñëpp jàpp ndax métier tailleur dafa am ñu ko téye ba mu egsi fii ñu ko téye ba mu egsi fii nag ki ma ciy cité muy benn président boo xam ne suñu grand frère la mu El Hadj mbay Mbaye 68 moo nekkoon ci grève bi yaakaar naa tey toog nañ deux mois yoo xam ne kenn liggéeyul am na ñeneen ñu fi jaar Mbaye Diouf Papa Diagne ci Ousmane Sène mii. tailleur nag dafa nekk loo xam ni àndandoo doon benn rek la métier mu civilisé la kon nag maa ngi ñaan yàlla na ñëpp doon benn te fàttaliku mag ñi ko yoroon ba mu egsi ci ñun dama ciy boole waale Baye Cheikh nekkoon marché bu mag ñun xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax am na jamono yoo xam ne dañuy grève fi gouverneur Alphonse Ndiaye ne fi ñun ñoo nekkoon tout tànk yi nga xam ni ñoo àndoon ci grève ba di doxal mag ñi ay mission kon tey bu ñu demee ba doon mag tey place ñooña ñu ñu ngi yaakaar xale yi yi nga xam ne ñoo ñuy doxal mission ëllëg ñu téye lii lool loolu rek la ñuy xaar ci ñoom waaw xale mag ñi nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu fi jóge yàlla xare leen àjjana ñu fi des yàlla guddal seen fan waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw. jërëjëf loolu mooy message bu président waaye du ñu sori dañuy ñëw rek dugg ak moom ci programme bi nga xam ni moom la ñu dëgmal dafa mel ni président yéen a ngi préparé benn cérémonie fii ci dëkk bi euh, te dégg nañ ci ci woote bi jaay kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi fi waaj a ñëw lan moo waral cérémonie bi ak it euh, yan invité ñoo ci am surprise. waaw xam nga lii dañ ñu koo jox depuis un an ñu garder ko di wut fu ñu ko installé yàlla dogal tey fii lañ ko def ci de commercial fii ñu ko def nag. li ñu fiy sàkku mooy ubbi fi centre boo xam ne centre de formation lay doon defalaat ko confection loolu nag président moo ko bëgg a ubbi président Gora Aaj moo bëgg ubbi bis bi le 10 juin la fii ci suuf centre bi manifestation bu rëy la koy def waaw muy ouverture centre bi ñu bëgg ko inauguré bëgg ko ubbi pour la première fois commencé liggéey normalement bis boobu nag ñu ngi invité ñëpp parce que président Gora Aaj président national xam naa Thiès ñu ko xam bariwul day ñëw incha allah te buy ñëw ñu ngi invité préfet ñu ngi invité gouverneur ñu ngi invité président chambre de métier lañ ci àndal tam waaw ba tax ne képp kuy kilifa nekk fii rek ba ci maire bi ñu ngi lay invité te ragal naa ñëpp dinañ ñëw incha allah. loolu la ñuy waajal waaye lu ñu sori dinañ ci gën a ñëw ak moom mu gën ñoo leeral yan invité ñoo ciy ñëw waaye dañuy dox rek euh, dem ci service commercial bi ñëwaat ak jël yenn témoins yi incha allah. ok mbokk yi ñu ngi waat fii ci émission yi ba léegi témoignage yi nga xam ne ñoom ay nit lañ ñu nekk ak président Cheikh Mbacké mbay waaye di ay nit ñoo xam ni loo leen gis rek wala nga seen leen ci dëgg lay doon ndax doxuñu ay caaxaan waxuñu ko te liggéey rek la ñu gëm seen doole rek la ñu gëm te ñu ngi toog ak euh, Ousmane Diouf di tailleur bu mag ci Thiès. waaye ci marché Moussante léppam di marché Moussante mu jegee Cheikh Mbacke mbay lool moom lañu ñu bëgg a jël ginaaw bi mu nuyoo ñu laaj ko dara ci Cheikh Mbacke aousu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mboolem nit ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen di leen bal aq te di leen balu aq xam naa sëñ Xaadim dinañu kontaan ci question bi nga ñu laaj ndax question bi mooy euh, grand Cheikh Mbacke dafa nekk koo xam ne wax dëgg yàlla ku ubbiku la ku yaatal la ku dimbali njaboot bi yëpp yooyu itam vraiment lii lépp mun ko amee ginnaaw yàlla ak taxawaayam ci la bokk kon euh, ku la jëfal war nga ko ne jaajëf euh, lii nag mu taxaw dinu woon ñu di tettee ñun ñëpp ñu ànd ak moom di liggéey liggéey bi ba yàlla dogal ñu am formation mu woo ci ñëpp yaatal lool ba affaire bi yaatu ba kenn ku ci nekk am ci sa njëriñu bopp kon kooku ñun mënuñu koo fàtte def na lu rëy ci loo xamante ne biir Thiès mënatuñ koo fàtte parce que mbooleem ñi nga xamante ne aussi ñoo bokk ci association bi nga xamante ne mooy waa FANAF vraiment ñoom ñëpp mobilisé nañu topp ci gannaawam ñu ko jàppale di ko ñaanal yàlla pour mu gën noo jàppale ba affaire bi gën a réussir kon loolu moom dinañ ci kontaan bu baax a baax. jërëjëf muy mel ni wax nga ni def na lu rëy ci Thiès def ko ci tailleur yi dégg nañ ci biir kàddoom ci émission bi mu wax ni ay formation ak financement ak yëpp jóge na FANAF ñëw fii ci marché Moussante ñu bëggoon a xam ba xam yow loolu am nga ci aspect wala bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko defal. waaw alhamdulilah daal mi loolu bokk naa ci ndax formation boobu mu ñu woowoon daanaka ñun ñii ñëpp ñoo ci bokkoon di dem bi ñu defee formation ñu ngi naan ay ponkali jëm ñoo xam ne ay mag lañu di tëj seen i place di jàngiwaat ñëw waaye ñun itam bañ demee vraiment gis nañu loo xamante ne moo méngoo ak jamonoy tey loo xam ne jànguñu ko woon ñu boole kook suñu njàng mu gën noo dimbale kon loolu moom moomu ci kàddoom la jaare rafetal la lool wax dëgg yàlla ba ñëpp kontaan ci man mi ci laa bokkoon wax dëgg yàlla kontaan nañ ci gis nañ ci lu bari ba machine yi yëpp daanaka ci loolu la jaare kon loolu wax dëgg yàlla képp koo xamante ne yaa ngi ci biir war nga koo sant ñëpp gis nañu ko dañoo teg suñu bët ba moo waral centre bi tey ñu war koo ubbi euh, di ko tuddee góor a aaj mu nekk moom itam wax dëgg yàlla ñun gisuñu ko miinuñu ko waaye nag wax dëgg yàlla loxoom ak jëfam ak ak ak bëgg fanaaf ñun wax dëgg yàlla loolu lañ ko nawee loolu lañ ci jàppee euh, kontaan ci loolu salaamaaleykum kontaan baax a baax jërëjëf mu mel ni loolu lañ ko nawee loolu lañ ko fonke loolu lañ ko bëggee ci taxawaayam di président national di Gora Athie ñu jaajëfal ko te ñaanal ko yàlla suñu boroom gën koo dëgëral waaye tey ji ñu bëggoon laaj ban message ngay lancé président Cheikh Mbacké mi nga xam ne mooy président régional ci membre yi nga xam ne ñoom ñoo adhéré wu ci ñoom tey yan jafe-jafe ngeen am ak lan ngeen bëgg tey mu taxawal leen ci waaw loolu it aussi sëñ Xaadim ñu la ciy sant bu baax a baax a baax euh, ci li ñu bëgg daanaka dafa mel ni sax ñun ñun ñoo koy topp lan la ñu war a def ndax yàlla dafa dogal mu nekk mag moo xam ne wax dëgg yàlla ñàkkul conseil te xam naa ne am na fu muy gisee gis-gisam rafet na te ñun ñëpp moom ñu encouragé ci li ñu war a defee sax foofu kon ki nga xamante ne nag mu ngi lay won yoon woo xam ne xamoo ko woon di la ci encouragé kooku boo amee leneen looy laaj vraiment kon yow yow la ñu war a laaj mais moom moom wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama ñun nag li ñu am mooy euh, lii nga xamante ne mu ñu ko fas yéene taxawal ñu bokk ci ndey ak baay te xam ni euh, sensu gone yi la li tax mu nekk sensu gone yi mooy daanaka ñun nii suñ ndaw wéy na kon loolu bu ñu programme loo xam ne ay temps la jëm ci kanam ñi nga xamante ne ñooy mujjee puso bi nañu fexe mu bañ a réer kon loolu daal lañ bëgg daal di ko ko sant bu baax a baax a macha allah li mu daaneel ay am na solo ñun ñi nga xam ne ñoo mujjee puso bi nañu fexe ba mu bañ a réer. mag ñi nag dañuy faral di wax naan mujjee puso bi mu réer yow la ñuy jiñ sàcc bi kon nañu bañ a bokk ci loolu nañu topp tànk mag ñi te topp yoon wi nga xam ne xalal nañu ko nga xam ne suñu njariñ képp la kon ñu ngi sant Ousmane di leen gërëm bu baax jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi waat toogaat euh, ak président d'organisation bu fenaaf national bu FENAF régional muy Papa moom la ñu toogal ñu bokkoo laaj rek euh, bis bi nga xam ni moom la ñuy préparé di cérémonie ouverture centre formation Gora Athie Euh, naka lañ ko waajee ak fan la toll ci préparation yi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan télé bi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal waaw di nuyu sëñ Xaadim Soumaré waaw président organisation FANAF li waral suñu jataay tey mooy ouverture bi nga xam ne dañ ko war a ubbi suñu centre de formation bi ñu am fii ci marché Moussante le diis ku ne xam na ni bu nee organisation rek képp kuy ñëw ci bis bi waa organisation nga fi ñëwal kon depuis bi ñu commencé def suñu ay démarches ci yóbbu ay suñu ay soutien dem si autorités yi waxtaan ak ñi nga xam ne ñëpp bëgg nañ ñu ñëw teewal ñu ci bis bi depuis booba léegi ñu ngi ciy dox ndax dañu bëgg mu nekk ouverture boo xam ne ku ko ku fi ñëw di nga xam ne ouvertir bi musul am moo tax depuis boobu léegi ñu ngi ciy dox lu ñu mën ak lu ñu mënul ndax bëgg bis bi réussir loolu daal la ñuy commencé suñu ay kàddu. xam ngeen tollu ci programme bi bâche yi xeet yu demee noonu est ce que yëpp jàpp na waaw lu jiitu loolu mooy li nga xam ni mooy yëgle ku mel ni sëñ Xaadim mii den ñun ci wàllu communication lu bëri ci loxoom lañ ko teg te jàpp nañu depuis bi ñu jàppee bis beeg léegi mi ngi koy jàllale ci rajo yi nekk Thiès ku ñu gis ni ku jàkkaarloog ñun ñi di nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci télé kon loolu ñu ngi ci doon dox li nga xam ne mooy wàllu baas yi ak li koy décorer ak sonorisation organisation dafa am nu muy doxee dañ ko def ay section section bu ne ñu am lu ñu la dénk waaye ñooñu ñi nga xam ne ñoom lañu dénk wàllu baas bi ak décorer bis bi ak lu koy taaral depuis bi ñu defee suñu première réunion ak ñoom ni leen lii mooy seen li ngeen war a liggéey ci bis bi ñoom ñi ngi ciy dox ba sori nañ ci lool lool lool depuis bi ñu commencé ñi ngi ñëw di ñu rendre compte kon xam na ni ñoom sori nañ ci bu baax a baax a ndax ku ne xam na ni le 10 ñëw na ba pare. li leneen li ci des mooy ku dégg président Cheikh Mbacké ni mu waxee di suñu kilifa ñun ñëpp xam na ni moom xaarul waa Thiès donc Sénégal lay xaar comme Sénégal lay xaar nag ñu war ñoo ñëw fekk si fii ci cees ñun waa organisation ñi ngi wax nañ ñëpp ñëw taxaw ñu jàpp bu kenn Pam Ndiaye mooy président organisateur rek boolewuma ci damay toog ñi ngi woo ñëpp ñi ngi woo képp koo xam ne membre FANAF nga nekk ci Thiès di dégg suñu kàddu nga ñëw ci liggéey bii nga xam ne président Sembake moo ñu ko dénk mu ñu ànd koog ñëpp. beneen bi ci des ñuy woo waa organisation regroupement de terre de la région de Thiès li tax may wax ñoom mooy dama bokk ci ñoom di fa fondateur topp ci président bi di premier vice président kon ñoom donte ay président marché lañu maa ngi leen woo ci liggéey bii nga xam ne président Cheikh Mbacké Mbaye moo ma ko dénk muy liggéeyu FANAF ñoom waa organisation regroupement de terre de la région maa ngi leen di woo ñoom ñëpp beneen bi ci des association bi nga xam ni moo nekk fii ci marché bi association jeune terre bi nekk marché Moussante président Baye Sidi Diop jiite ko maa ngi ñaan waa association bi la 10 nañ ñëpp ñëw xëy si ñëw jàppale ñu ci liggéey bii nga xam ne dañ koy liggéey te liggéeyaluñ ko fanaaf marché Moussante yëpp lañ koy liggéeyal rawatina Thiès waaye loolu daal président Karim ñu ngi koy waxaat bu baax di nga xam di wax gan ñi daal képp koo xam ni xalaat nga ñëw foo neex waaye na fa jóge ñëw dinañ leen dalal dinañ leen teeru dinañ leen toppatoo bañ mel ni ñoom ñi ngi seeni kër ñi ngi xaar ñëpp di ñaanalaat président Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom la président Gora a jël teg ko ci suñu kanam li nga posé sànq grand Ousmane président Cheikh Mbacké day yaatal ku yaatu la te day yaatal man formation bi bu ma ci bokkee yàlla ak moom la biñ may convoqué maa ngi tay ba weekend te daf ma woo invité ci ndax bokk di nga ñëw ma ne ko waaw kon kooku dañ koy ñaanal rek taxawaayam suñ borom gën koo yàggal ba lépp lu mu yéene ci ndaw ñi suñ borom defal ko lu kawe njortam mu yàgg fi lool di la santaat bu baax di santaat télé yi yàlla na dem ba bokk ci télé yu mag yi waa Sénégal di tiitaloo yàlla mën na ko danga ñoo bett kàddu yi diis lool mais bu jubee ci suñ borom la bu dëngee mata matadik doomu aadama la wasalaamaaleykum wa rahmatullah loolu mooy kàddu yi président Papa Ndiaye mu mel ni euh, loolu mooy ay kàddu yoo xam ni moom la jotal ci jotaay bi ni mu préparé bis bi ak fi ñu ci toll ak ni ñu fas yéene ak yi gan ñi nga xam ne ñoo jóge fu nekk di ñëw macha allah ku ko dégg xam ni pare nañu aussi tamit amuñu lenn lu ñuy xalaat ci wàllu organisation. ok mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek ñu demoon euh, seeti li nga xam ne mooy yëgle yi ànd ceeg sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu àndal waaye jël témoin yi nga xam ne it ñoom looy témoin président Cheikh Mbacké Mbaye euh, ci liggéey bi ñoom ñoo ci ànd ak ñoom bu ko defee rek ci foofu rek la ñuy ñëw àggale li nga xam ne moo ci des euh, fas yéene waxtaan ak moom ci programme bi nga xam ne moom lay préparer dégg nga sànq li mu ko waxee ci euh, préparé inauguré centre bi nga xam ne mooy centre de formation waaye président ñu bëggoon nga taxawal ñu tuuti rek ci centre bi maanaam lan moo tax ngeen taxawal centre. waaw xam nga centre bi bi ñu koy jox matériel bi dafa am lu ñu digaloon lu ñu digaloon fexe ba former fi xale yi informel lañ bëgg mu jóge fii ñu dem ci formel. kon nag képp kuy xale nekk ci dëkk bi bëgg jàng métier say way jur bëgg nga nekk tailleur woo nañ la ci centre bi ay mbiram jafewul dañoo joxoon centre bi pour ñu former xale yi parce que xale yi dañoo jaadu pour ñu am métier loolu moo tax ñu ubbi centre bi pour former fi xale yi suñu doom yi ñu mën a am métier waaw kenn ku ci nekk booy génn génnewaale métier boo dee góor nga mën a yor sa bopp boo dee jigéen bu la sa borom kër jëlee aussi nga mën a yor ko yor sa bopp waa jàppale ko aussi ci kër gi waa loolu mooy suñu yéene aussi bëgg nañ jàngale fi diine bëgg nañ xale bu fi jógee boo ferul ijji it di nga mën a fer ijji soxla nañ loolu aussi waa lépp luy xeetu ñëw nag fas yéene nañ koo jàngale fii incha allahu rabbi lépp luy xeetu ñaw fas yéene nañ ko fee jàngale waaye dafay mel ne yemuñu ci ñaw rek euh, wàllu confection it dangeen ko fiy liggéey. waaw confection dañ koy liggéey parce que am na ay marché yu ñu yaakaar ba lii ñu tiim sax jot koo filmer ay marché la yoo xam ne am nañ ko fi am na marché yoo xam ne ñu ngi koy gën yaakaar aussi pour liggéey ko ci centre bi te ay société ñoo ñu koy jox wala ay école jox ñu ko vraiment ñu ngi koy xaar di tàllal suñu loxo ñëpp te lépp lu ñu waaye jox fas yéene nañ ko liggéey ba mu mel ni mu war a mel loolu mooy suñu yéene te am nañ capacité bi. ndax fii ay maître tay rek ñoo fa daje te avant ñuy fi daje dañuy yóbbu defalaat ñu formation formation bi ñu defal bu ñu dellu seeg suñu xam-xam yi nu amoon moom lañu dajale fas yéene ko sotti fii def ko ci bopp xale yi te mën naa bañ a yàgg xam nga bu njëkk ñun ñi dañ daan jàng ñaw 7 ans ñi jàng ñëw 6 ans ñi 8 ans loolu lañ bëgg mu deñ dañoo bëgg ku dugg ci centre bi ci at yu néew nga mën a ñaw li nga war a mën yëpp nga mën ko ba boo génnee mën a jariñ say waajur loolu moo ñu tax a toog fii. macha allah loolu moo tax a jóg mooy lu mel ne lu am solo la euh, ci wàllu ouverture bi nag dafa mel ne jàpp ngeen date bi waaw euh, ñu bëggoon a xam date bi kañ la ak cérémonie bi nan ngeen koy déroulé. waaw date bi le 10 la le 10 juin la. waaw à 15 heures 3 heures maanaam la ñu bëgg mise en place bi ñu def ko 3 heures ñu bëgg suñ ko defee 3 heures gan ñi ñu xaar leen ba 4 heures ñu commencé cérémonie bi. buñ ko commencé ñu bëgg lu lu tegu ci 17 heures rek mu jeex ndax ay kilifa boo leen yëkkatee mënu leen a teelu yàgg waaw ñu ngi ko war a def fii ci suufu centre bi le 10 juin lay nekk te li ñu bëgg mooy buñ ci egsee ñu wax taxawaayu centre bi ndax suñu président góor a aaj moom la ñu tudde centre bi te ragal naa Sénégal ba mu daj ñu ngi koy door a tudde centre ci Sénégal te loolu nag doy ci moom la dëkk démb dem nañ fa samedi mu recevoir ñu waxtaan nañu moom muy lu mu rëy ci moom lu ko bett itam mu bëgg a teew sagal ñu ci biir dëkk bi ñu bëgg ku ko mosta gis nga ñëw fekk si ndax nga teg ko bët xam ni kii mooy jariñ tayari Sénégal yëpp ñu ñaanal ko yàlla yàlla barkeel ko barkeel njabootam barkeel sunu njaboot incha allah rabbi mu mel ni loolu mooy waajtaay wi kon le 10 incha allah 15 heures la cérémonie bi di commencé incha allah fii ci marché Moussante ci suuf centre commercial bi ñu ngi ciy woo àdduna bi yëpp waaye ñu ngi ciy woo kilifay Cees yi xam naa ci kàddu président laay jox mu wootee ci turam ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal nekk ci dëkk bi di ay autorité waaye di ay kilifa aada ak kilifa ay di kilifa diine ñëpp ban wootee ngay def ci ñoom. waaw woo nañu ñëpp te ñi ci ëpp sax seen lettre dem na. waaw kilifa diine ñu ci jëlee sëñ Babacar Ndiom sëñ Babacar Ndiour ñu ngi ko ci jiital di ci teg sëñ imam bu marché mu sante buñ paree ñu teg tey sëñ Modou Ngom di représentant sëñ Sall fii ci secteur bi ñu nekk waaw buñ paree aussi ñu teg ci monsieur le maire ñu ngi koy wootaale sit la waa xam nañ am nañ yaakaar ci ne dina teew ci bis ndax noo seulement ci koñ bi la dëkk te kuy def lu baax la te xam nañ ko te barki démb rek bi mu wootee teew nañ fa kon ñun tam bu ñu xewlee bu ñu ko woowee war naa ñëw ñu ngi woo Pape Bassirou Diop mi nga xam ne mooy sunu maire est bi moom tam ñu ngi koy am yaakaar ci teewaayam di woo gouverneur ndax gouverneur day ñëw mm-hmm. incha allahu bi am nañ ci yaakaar waaw ndax dangay ngay woote rek di am yaakaar képp koo xamante ni kilifa nga nekk ci dëkk bi ñu ngi lay woo di woo ñëpp rek bàyyiwuñu kenn waaye nag am ñoo xam ne faaw ñu tudd leen par exemple ku mel ne di Jaxate nekk koo xam ne fii lañ dëkk fii centre bi nekk kër gi taxaloog moom mooy seen kër kon lii buñ koy def muy nekk kilifa ci dëkk bi def social ci dëkk bi war nañ ko woo mu teewee ci bis bi kon nag ñu xaar ñëpp ci bis bi bëgg mu rafet bëgg ñëpp jàpp ci ba mu tegu ci yoon ba ñu am ci ndam ndax sunu ndam mooy ndam waa Thiès yëpp ñun defalu ko su defaluñ ko suñu bopp Thiès lañ koy defal gis nga bu njëkk tailleur dafa nekkoon loo xam ni lu doyoon waar la lu doyoon waar la comme léegi yooyu yëpp dañ na ndax am na fi may wax yow nii ndax jege mag ñi baax am na tailleur boo xam ni ci suñu grève bu mag ña ci lañ ko génne woon Thiès ba nag ni mu ngi Dakar ba léegi mu ngi dakaar jaaraatul Thiès te tailleur yi Thiès sax xamuñu ko kon nag ñu war nañ leen di fàttaliku kon nag ñoo fi liggéey liggéey bu rëy di mag ñi fi jaaroon kon nag ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp encore une fois di woo Papa Diagne mi nga xam ne nekkoon na président FNAF di woo aussi euh, Ousmane Sène nga xam ne moo ko mujjee yore mu ñëw ci suñuy loxo di bëgg rek ñëpp teew te yàlla yàlla may leen wér bañ mën a teew di woo suñu soxna yëpp képp ku nas puso ci mars ci ñu ngi lay woo rawatina waa mars mu sant waaw di woo Mamadou Seck comme ni ma ko wax sànq di woo rek kilifa yëpp di woo kilifa yëpp waa Grand Thiès ñu ngi woo ñëpp rek ak délégué marché mu santé Ousmane Mbaye ñu ngi koy woo di woo ñëpp rek képp koo xam ne yaa ngi ci marché mu sant ñu ngi lay woo kon nag bis baa ngi loolu <coughs> ñu ngi leen di xaar yàlla na yàlla yeggale ko ci jàmm ci barke yonent bi Euh, loolu mooy euh, événement bi ñuy préparé dégg nga président ak woote bu jotale bi nga xam ne woo na ko mbokk yi nga xam ne ñoom la bokkal dëkk bi di ay autorité waaye di ay kilifa diine woo na imaam yi woo euh, représentant wu xalif général des mourides bi nga xam ne moo nekk Thiès sëñ Modou Ngom di ko di ay tànkam di làmbañam woo na ko ci bis bi waaye woo na it képp koo xam ne moom mooy artisan nekk ci réew mi waaye nekk ci dëkk bi nga xam ne mooy Thiès rawatina ñi mu bokkal métier ak ñi nga xam ni ñoo fi yor OPA yi nga xam ne ñoo fi nekk regroupement des TPT de la région de Thiès waaye ñi nga xam ni ñoo yoroon FNAF démb tudd na ci Ousmane seen ñëpp xam ko ci taxawaayam ci wàllu modd dafa mel ni kon président bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñenn bis bi ñëpp ko bokk ak moom ñëpp ñëw ñu bokk ko maase ko ànd ko muy fête ci Thiès waaye di honneur ci Thiès kon bala ñuy tëj kàddu gi dañ koy jox mu def kàddoom yi mujj rek incha allah lépp loo xam ni bëggoon na ko wax muy ay message euh, lan lay doon président. waaw xanaa di leen gërëm rek yéen yéen ñi nga xam ne yéen lañ ko àndal ngeen di ay xale du ngeen tàyyi du ngeen sonn ci di ñu jàppale te seen bopp ngeen di jàppale ndax yéen a ko moom kon nag ñu ngi woo ñëpp rek duñ guddal wax ji ndax dafa am ñu fi toog ñoo xam ne war nañ leen laaj waaw kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen gërëm yéen ñi nga xam ne ay xale ngeen lii seen mbir la ni ma ko waxe sànq jàppaleen rek waa dina baax incha allah kon nag jërë ngeen jëf presse ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que lii am na solo ndax am sa ñu ñëw toog jël ko fas yéene koo teg loolu mënuñu ko fay kon dañu leen di gërëm di leen sant di woo presse aussi bu Thiès yëpp képp koo xam ne presse nga ci Thiès rek bis boobu ñu ngi la ciy woo waa nga mën cee teew ndax ñëpp mën a gis li ñuy def asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf loolu mooy kàddu yi président euh, kon loolu rek lañu leen jëlalee loon fii ci marché Moussante ci euh, centre de formation Gora Athie euh, ñëwoon fekk fi président mu jotal kàddu yi am solo yi nga xam ne moom la jotal waaye it wax importance FENAF buñ ko fàttee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te ñëw euh, adhéré ci mouvement bi ànd ak moom liggéey parce wax na ci biiri kàddoom yi fi ndaw ñi la di leen koo téyeel rek kon euh, képp koo xam ne am nga mag ñu mel nii war nga leen a war a jege ngaa xool li ñu yor mooy lan ngir ëllëg nga mën a dox ci tànk yi nga xam ne fa lañ taxawoon ñoom kon loolu lañ leen jëleli fii ci marché ko Khadim Soumaré ak caméraman bi ñu ngi leen di sant